nekk rek la xewoon ca Ndar coow tey jii nag ndaje bu mag daal di fay am ba ku ci ne rek daal di eh, yëkkati ci ay kàddu ak la mu ca rotal accident yi ak lim gi na mu bare juróom benn junni at jot ak ña cay faatu ña cay amee gaañu gaañu itam eh, mbir moomee saafara gi dañ cay rek sàkku jeexaleeg eh, Cheikh Anta Diop ak na mu mel wala liggéey ba mu fa def ba ci ñeneen ci ay nit ñi réew mi am te ñu war leen rek nekk royukaay tey jii daanaka mbiru liggéey bi jëmee ci ñoom ña koy saytu bariwuñu walla sax duñ ko def ñu jël ko jiite ci ligne bi allo salaamaaleykum. allo waaw. allo. allo bi ñu ngi lay dégg. dama bokk. waaw kay bokk nga kay. Ah. Mhm, yëkkatil kàddu gi. allo allo waaw. ñu ngi lay dégg bu baax. waaw kon maa ngi maa ngi déglu rajo bi pour ma mën dugg. waaw da koy wàññi comme ça déggante bi gën a baax. waaw wàññi naa ko. waaw kay. aywa yow la déglu. allo waaw da man euh, dama bokk si mool yi. Mhm. maa ngi tudd Baye Cissé dëkk Ndar. Baye Cissé waaw. lii xale yi def ñaa euh, ñëpp ko ñaawlu ndax euh, bu mbir amee rek am na lu tax. Mhm. bu ñu ne hôpital bi am na problème ndax xale yi dañ ko yàq vraiment hôpital bi dafa jonoo ak ñun muy gandar mhm. li si des policiers yi ñoom ñoo ñuy aar ba tax ñuy nelaw vraiment policier yi nga xam ne ñoo ci gaañu ñoo si am bële voilà ñi ñi si gaañu seen bañ damm yërëm nañu leen ñoo ngi leen di ñaan ñu am jàmm. Hmm. waaye dama bëgg wax ni pêcheurs yi amuñu sens parce que état Sénégal dafa jàppalewul mool. Hmm. mool mooy métier bi nga xam ni création d'emploi li mu si def bu gaal yi dee teer mbooloo ma fay daje ñëpp ay am ndawal am dépense. Hmm. mais état faalewu leen. man nag <clears throat> dama bëgg a wax ni. ñi nga xam ni ñooy ministères yi dañuy tànqam lu lu bare. licence bi daw na. six mois la ñu am trois mois yi dem na novembre décembre ba ba janvier bi yëpp ñàkk nañu ko napp ñu léegi nag man damaa wax ci ndar mais dama bëgg a wax ci ñàkk bi ministère bi ñàkk njëriñ ci mool ñun at yi dañoo amoon problème ak Bissau muy jàpp gaal yi ñoom ñu wax ni ku bëgg am licence bu baax da ngay jaar ci ñun da ngay jaar ci route de ñu envoyé la muy ñun waa Joal ñiy nappi Bissau da ngay jaar sur sur route de pêche Dakar jox la autorisation nga dem Bissau Bissau jox la licence pour ñu xam leen ëllëg problème bu am ñu taxaw ñetti at yi yëpp ñun ñoo ngi def loolu di fay un million cinq cent si une année wala un million sept cent aywa hmm. daaw ñu jàpp gaal yi loolu Sénégal yi yëg nañ ko rajo yëpp wax nañu jàpp na leen un mois man mi jóge naa fi dem gis directeur de pes mag mbooloo mi ma àndaloon inspecteur de pêche bu jogal muy Diouf mi ngi toog photo yi nga xam ne ñoom la xale yi envoyé si métti bi ñu bi foofu métti nekk ci jant bi. seen. Euh, ok naymatal euh, Pape Lay kon ñu xaar keneen jël ko ci lim bi ci ponk yooyu wax sa xalaat allo. asalaamaaleykum. waaw waaleykum salaam sëñ bi. Oustaz Adama. waaw. ndongo li Baye Cheikh Diop yebbu tudd ñu ngi lay nuyu waa. ñu ngi lay nuyu di la siyaare. Mhm. di nuyu si technicien di nuyu mboolem groupe wax sa xalaat. waaw di wax tey jii li ngeen di waxtaanee amati na solo ndax daanaka bés bu ne maanaam ci ngeen di xëy ci ngeen gont. ci loo xam ne luy jëriñ askan wi lay doon ndax bu fekkente ne tey jii doomi réew nekk ci ab dëkk di liggéeyante ay licence de pêche di wax ñu war ko waa accordé diggante ñaari état maanaam ña nga fa doon napp tey jii dañoo war a def ndànk rek ba lépp liggéeyante moo gën ñu yàq seen euh, dëkk ndax tey jii fi ñu doon la fa yàq ña fa nekk doomi ndar ya fa nekk rek ñoo ko yëg xëy la ma naa am ñu raaxaloo ci ñoom ñoo xam ne duñ doomi ndar waaye la def ñooñu la def pour contre état wala contre dara ah dañuy yàq duñ defalul luñ doomi ndar dañuy yàqal doomi ndar hmm. ndax barki démb dégg nga waa ji wax na ko nee na maanaam boo ko seetee trente personnes yi ñu maanaam ñeent rek ñoo ci dëkk gétt ndar kon loolu nga xam ne ñoo doon dugg li waral njaay di dana naan euh, xuma ndax xam nga naan defaare ci say soxla moom lañ doon def xëy na dañ cee bëggoon a profité waale pour moo tax ñu def la ñuy def waaye nag waa ndar rek ñu yëg ñoom daal moom li ma leen di ñaan mooy nañ góorgóorlu xam ne ndar to baaxee seenub dëkk su safaan ba amee tamit waa Ndar rek ñoo ko yëg nañ góor a góor góorlu xam ne eh, ndax fi ñu doon tey ji bay nga xool tey ji luñ doon yóotu rek fan yee rek daañ ko ñàkk ci fan yi ndax bu fekkee na xëyoo liggéey war a napp war a yóbbu sa njaboot demoo ngay dem tribunal ak ñëwatim xam nga loolu noppul keneen moo tax nit ñi nañu góorgóorlu xam ne réew mi ñun ñëpp noo ko bokk président Macky Sall amu ko ndax président Macky Sall li ko juróomi at wala juróomi at yi ko fi nga xam ne tey jii mooy tax nguuram jeex tey jii mandaam jeex tey jii boobaa keneen day ñëw rek bu keneen toogee itam bu fekkente ne nit ñi woote nañ keneen keneen koy toogee itam ah bu boobaa ñu xam ne mën na fee indi def leneen rek waaye daal nañ góorgóorlu ba nga xam ne daal réew mi seenum réew la ndax liñ fiy def lépp nag ñoo ko moom man daal bu ma doon ñu bàyyi yàq beeg toj bi ndax fekkee ne Sénégal ba dañ ko yàq ak foofu ñu yàq nga xam ne tey jii ay réew ko bokkoon Guinée eh, ko eh, nu mu tudd Gambie eh, Côte d'Ivoire ak keneen ñu jël keneen kon Pape Laye bitim réew 33 841 22 33 biir réew mi 88 allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw sëñ bi. yow ñu ngi leen di nuyu di leen jaarale Laye Ndiaye la maa ngi koy Dakar. waaw ñu ngi lay nuyu Laye. bon euh, li xew ndar daal. Mhm. naqar na ñëpp wax dëgg yàlla. Mhm. ndax ñoom ànduñu ak seen sago. te ñu leen jiite aussi ñu ak seen sago. man moo naa comprendre ñu ne état de Sénégal moo war a régler ay licence de mais comme da ko seqal état souverain comme alors ñu ngi koy négocier jox ma jox ma ma lekk tey par la force wala ma yàq wala ma yàq loolu foofu kenn mosu ko gis quand loolu kenn mësu ko dégg kenn mënu ko dégg d' accord nañu ñu kaas seeni droit d' accord nañu ñu wax ko ak état bi mais lii du état c' est pas l' ñaari état la état Sénégal lu mën quand mooy dem négocier leen et forcement aussi état mauritanien d' accord ci mais ñu ni par la force day am ba tax yàq gu métti googu yàq dem yàq man bi ma déggee waa ji naan otom la ñu taal ak 600000 ba ak këyit këram ak permis de conduire loolu dafa naqari ci xol te yoonam newu ca mais là euh, euh, en tout cas man daal wax naa ko foofu keroog Maodo Faye nee naa ko ñii jarul ñu leen ñu leen défendre. Hmm. ndaxte nag dañoo tooñ ba toññar bi. Hmm. ndax nag kaay ma ñëw sa kër nag ñu dëkk ñu bokk ñu bokk benn ñu dañ benn kër ma jël samay waa daal di ñuy dañuy toj sama kër. Hmm. wala ñu man ma wax ak yow pour nga jox ma jox ma dépense suma kër. bu ma ko deful ñu ñu ñu toj sama kër. mais loolu kenn mënu ko dégg alors ndar nag dañoo juum hmm. te man bett ma ñëw naan dañoo baal mais baal wax c'est trop tard parce que li ñu def li ñu yàq lépp ëpp na ëpp na hmm. ah léegi nag nañu leen xool nañu leen yërëmay xañ na lii dootu leen dalaat xañ na dootu leen dalaat hmm. mais dañoo tooñ ba toññeer bi loolu il faut que ñëpp xam ko ñu nangu ko tamit parce que c'est ça la vérité nous sommes dans un pays de droit il faut que ñu respecter les lois et les règlements de ce pays là jërëjëf merci. ok sëñ bi Ablaye kon ñu xaar keneen Pape Laye jëlati ko biir réew mi wala wax sa xalaat allo. ki la jox nga lekk bëggul nga dee jàpp naa dootuma bàyyi. allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa. sëñ Adama ñu ngi lay ziare. waaw ñu ngi lay delloo ziar soxna si. njiit day mat njiit waaye tey ministre bi ni mu fa demee saafarawu ko wutu fa jafe xanaa di gën a xamb te ay nitam nag la woo ñu naan ñi ngi jéegloog ñoo tooj ñoo lii yow booy faj dara. dangay dem fa mu xewee nga dem faj ko fa woo ko même bu ñu tooñee bu ñu jëmanti def nga dem wax ak ñoom waaye dem woo say nit ñuy wax seen i wax ak di def sa affaire politique ak naan yoon dina def liggéeyam seen affaire di toog ñu yore woon réew mi ñeent fukki at moom lañu ay sénégalais lañu dañoo réeroo am nañu naqari ñu ngi nettali ñu ñu gaañ ak yàq yëpp dañ koy nettali kenn dañ koy ñaawlu moo tax kuy laajati réew rek na ko laaj ci jàmm réew ni nga ko laaj nga ko yore ndax def weer ci place de bi yor sa ner gàddu président ensemble yor xeera bi bu ñu nee nii Sénégal yi génnee ko di ko wane ci internet bi xale yi yëpp di ko gis xam nga loolu du image yi rafet te noonu lañu laaj réew mi noonu la ñu yore réew mi noonu la ñu nekkee Sénégal yi fi mu toll nii waaye nag Sénégal yi danoo sonn lu wëral njiit yu mat njiit ministre yu mat ministre waaye jël sa nit fee jël ko rek mu dem fee di wax ay wax a wut ay militant ñu naan ñi ngi jégguloo ñun ñoo tooñ ak ñun ñoo def nii mu jigéen ñi di ngeen waxtaan li waral lii ak lan moo ko kii ba ba ëllëgee mu bañ a amati loolu moom moo gën waaye ñu ministre yi amul eh, wax rek la ñu man ak kuloo ak dàgg sante ak formé ay wax ak di koggaliku yooyu dong lañ mën mën leneen accident yi defuñu ci dara milliards yooyu ñu wax milliards réew mi ñoo ko paacoo bu ñu leen di ñu naan def nañ ko ci accident def nañ ko ci lii defuñu ko ci leneen ñooy paacoo milliards yi nga gis nga rapport bi leen jàpp barki démb mu génn nekk seen avocat di leen seetaan am nañu seen émission boo xam ne suñu xëyee fa la ñuy dem setal seen bopp ku ci rapport jàpp fa ngay dem doon sa avocat bopp ndax ñoom moom euh, wax moom ñoo ko ñoo jël coupe bi bu dee wax rek dinañ wax ba setal seen bopp waaye nag ci ñu ànd li na fi jóge buñ fi jógee milliards yi ñu yóbbu dinañ ko delloo si fii Seex Anta nag moom gàcce ngaalaama moom ndax fonk na der bu ñuul fonk na Sénégal war naa xam ne Sénégal am xam-xam moom foofu woon ci ginnaaw tubaab yi daw rek waaye judd après indépendance ba nekk ci ginnaaw tubaab yi daw jël sa koom réew yëpp jërëjëf soxna si loolu mooy jàngatam ñu jëlati keneen ci ligne bi ñu wéy. salaamaaleykum waaw waaleykum salaam waaw sëñ bi. ñu lay ziar te àjjuma ji. ñu ngi lay delloo ziar waaw. di ñaan yàlla def jàmm suñu réew mi. oustaz man di wax dëgga yàlla xaw man dama koy ñaawlu. li hmm. nga yónnee ni bu amee amul opposant amul pouvoir nanu ñaan yàlla jàmm ndax xale yi suñu li ñuy def ku ci ànd rek. vraiment dama xam ne yow sa xol moom kii quoi ndax oto jàmbur articulé jënd otoom ay millions yow ñoo mu taal ko nga ne loolu bu ko teg état mais xale yi il faut nga corriger leen sa doom sax bu defee heure da koy jar kar karwaase ko kii ko ne ko toogal fële da nga neexal ko mais dinañ bàyyi lii di nga vraiment l'état personne ne peut être au-dessus de la loi lii vraiment dama ko seetaan vraiment sa sama yaram dafa daw encore um doon laa ngi xeex ak moom di ko sànni mais booy vraiment léegi gët nga baal ma booy gët ngar yi vraiment dañu reew xam man ndax ko gis dama ko dama ko ñaawlu wax dëgg yàlla na leen corriger leen nit ki ne suma bormo ne ne ku tooñ nan yoon mais nag tey ba pare nag di jël alal jaamu yaa ko pare ñun dañu nangu di jéggul su leen jégalee heure ñu defaat la même chose na leen corrigé ba beneen yoon man yàlla xam ne julli am na xool yërmande ma ko wax dëgg mais li ma gis vraiment ñaawlu naa ko trop en tant wax dëgg yàlla lii moom ñaanta moom yàlla bu am dar ndax ndax dëkku taranga la buñ nañ wax premier dëkk boo xam ne moo nekk capitale du Sénégal ñu def référence ku ñëpp ku weex ndar lañu jël ci référence yi ndar bu ne soor génn ci mën ah, ndax sa waxin wala sa yarin wala sa taranga yi ngay xam ñu jox taranga Sénégal ci ndar la la jugee kon nag ñun ñoom bu ñu demee te suñu doom yi suñu garbaat yi génn di xeex alkaat yi dama ko ñaawlu vraiment loolu ñu dëkki leen piñu leen ba beneen yoon mu def mais nag aussi na leen jégal mais jégal bi aussi tamit dafa ànd ak ay conditions ndax te loolu mooy ñu xoolal Sénégal bi ñu ko def comme ñu après impôt yi suñu la ñëwaat ah mun nañ ko fay pour ñu dëkk bi développé ay ñu xaritu jël di yàq di saccage yi taal vraiment pas continuer ñu ñaan yàlla suñu ko fi àll bi nga xam ko def ndax bu ñu ko am si kon ni ko am la naqari ne bañ taal bañ a yàq Ablaye ñu jël keneen kon ci ligne bi 88 628 98 81 18 ci tay wax sa xalaat allo allo salaamaaleykum waaleykum salaam waaw waaw man la Souleymane na ngeen def. Souley ñu ngi lay nuyuwaat. waaw ah, ma leen nuyu bu baax a baax. Hmm. waaw donc euh, wax si sujet bi rek donc daw di ñaaw lu toj-toj yi am donc yàq bi am Saint-Louis parce que yàq moom vraiment baaxul. Hmm. ci dëkk bi nga xam ni bon amuñu ay infrastructures yu bëre donc le peu qu'on a nga koy yàq loolu moom baaxul vraiment mais problème bi dafa poser un problème beaucoup plus général moom mooy ni ñuy gérer suñu ressources yi. nos ressources halieutiques maanaam am am bi am si géej bi ak nos ressources minières maanaam or bi Sénégal euh, zircon beeg yooyu parce que mënoon nekk si dëkk bi nga xam ni ñun Sénégal am nañu géej on a sept cent kilomètres de côte et même plus donc tu vois mënuma comprendre tey ñu naan dañuy wuti ay licence ay nii ay Guinée-Bissau ak yooyu mais pourquoi on a on a nos côtes sont poissonneuses dégg nga bañ nañ ko baax ay bateau étranger ñoo ñëw ba ñëw suñu géej di nappaay jën donc licence yooyu ñu jox les bateaux étrangers dañ ko war a xolaat depuis temps PS ba léegi licenciés on les distribue n'importe comment bateau yu jóge à l'étranger ñëw ay bateau euh, asiatique ay bateau européen ñëw di jël suñu géej bi di jël suñu jën yëpp alors suñu pêcheurs ñoo ko war a am ñun am nañ suñu géej doo dégg mukk ñu naan ay pêcheurs mauritanien ñëw nañu di wut ay licence Sénégal wala ay pêcheurs euh, gambien di ñëw si non ñun lañ ñooy dem si ñu leen ñi mais pourquoi alors qu'on a de am nañu am nañu suffisamment de de poissons dans nos dans bu fekkee suñu géej amul amul amul jën na ñu dimbale pêcheurs yi ñu dugg si élevage ko kooku tamit c'est un moyen quoi de pour am ay jën ah mënu ma comprendre ñu am géej ba pare suñu pêcheurs dem di ñu leen di rey di leen toroxal voilà pourquoi alors qu'on l'a dafa poser le problème de gestion de nos ressources or bi ni lañ ko gérer zircon bi ni lañ ko gérer on a des ressources mais qu'on ne voit pas suñu yaay yi takkuñu or suñu sœur yi takkuñu or suñu jabar yi takkuñu or or bi mu dugg. pareil le poisson c'est pareil mais y a des de gestion de nos ressources dans ce pays. jërëjëf euh, loolu mooy jàngatam Pape Laye waxtu dese ñu jël keneen allo waaw. Ah? allo allo waaw. Ah? Oustaz Boy Malick. waaw ñu ngi lay nuyu sëñ bi ñu ngi sant yàlla waa xam naa di ñàkk rafetlu vraiment li xew Saint-Louis metti na na wax dëgg yàlla quoi. Hmm. sérieusement hmm. parce que ku ko seetaan la télé xam ni vraiment affaire bi metti na loolu wax dëgg yàlla mais d'une part. Hmm. mais d'autre part aussi euh, oustaz. waaw euh, suñu état bi vraiment c'est un état irresponsable. mais lan moo tax Adama. Sénégal. bala ngaa jot li nga am wala bala bala bala ñu laa bala ñu laa yëg il faut nga woote wala di nga yuuxu di nga yàq ñu soog a toog mën a waxtaan ak yow lan moo tax yii yëpp mënuñu koy def avant dara di xew parce ngi dégg léegi benn mool di wax nii seen problème mu licence mois trois mois yi dem ba léegi fi nekk trois mois moo ci des ba léegi gars yi moo tax loolu bañ ko xamee ba léegi ñu mënuñu woon a jóg avant lii lépp di xew ñu toog waxtaan ñu leen te bi ñu leen joxoon app bi ñëw na mais nangam ak nangam toog ñoom waxtaan ak ñoom mais toog ni zëm te toog ni zëm yéen waxuñu leen dara léttuñu leen firiwuñu leen mais problème phénomène bi am Sénégal daal man vraiment ci état bi man jaaxal ma yow bala ñu laa mën a jox li bala ñu laa a jox li nga yor fokk nga yuuxu wala fokk nga xeex ak ñoom ñu yëg la mais fokk nga def ay affaires yoo xam ne yooyu wécc mujj mais loolu ci état bi la ba ci étudiants yi di laaj seen bourse yi fi mu nekk nii nangam ak nangam fi nekk dañuy toogati ba ñu rey fi ab étudiant toog wax ñoom lu leer wala ju lu la phénomène boobu moo fi loo xam ni nii da nga koo digal sa nawle bu ñëwee te amul da dem teel a waxtaan ak moom ni ko lii ak lii kat moo tax amul dañoo may na ñaanga ma nga waxtaan mais bu ko defee jéye a mën ñu mën a éviter ay téye d'accord métti na mais état bi d'une part aussi aussi il est responsable nañu waxante dëgg nag mm. te yàlla tax nañu waxante dëgg te yàlla tax mais xam ni lépp mënoon nañ ko mënoon nañ ko éviter avant mm. mais dañuy xaar ba jaan romb ñuy commencé di dóor ci wati bi loolu amul benn sens état yi ñuy jóg fa mu war a jógee di wax fa mu war a waxee di a defee. loolu rek laa amul ci leexu salaamaaleykum wa rahmatulah. ok euh, jaajëfal ko sëñ bi woote ca Malika ñu daal di ko fi yemale waxtu wi dab nañu euh, dañuy dikk ci xibaaru sud éducation buñ ca noppee euh, vingt deux heures jot Adja Ndeye Khady ñëw ci xibaar yi ci yaatal kàllaamay tubaab lay doon ñu ngi jaajëfal bu baax a baax Papa Abdoulaye Dieye.